man mbalit laa ba léegi maa ngi si mbalit bi yaa ma dégg man mbalit laa ba léegi maa ngi si mbalit bi na dem ba rek ñu doonul mbalit man balit laa ba léegi. au contraire wax boobu muy wax man sama bopp laa tuddee mbalit ba ma daanee pagala ma laaj ne ma ndax da ngeen war a bëre. ma xanaa man man maay mbalitu man de loolu laa laa tuddee mbalit. maa bëriwul ak giri parce que ragaloo ko. ok dama kaa ragal. moo koy wax rek mooy mu am respect si nit ñi c'est pas la fin du monde fii làmb gis nañ fi mbër mu ne loolu daf ci am solo mais foo waxee rek nit ñi jàpp ne ki xam ne kii di wax nii yàlla may na ko mais c'est un fou loolu c'est pas correct. bu boobaa man bu may ñëw jag laay indi tekka si arène bi ku ku daan sa boobaa ba pare rey ka dugal ko si jàgg bi suuli. jaagu mooy lan jaag lan jaagu kii. affaire néew astafurlah waaw jaag bi de moom wax dëgg fa yàlla man moom yàlla ma yàlla musal si yooyu. ak samay samay ñi may àndal nii sama booy ñu may àndal ku si mel ni Dëwur comme maa la koy expliquer Dëwur Birane Seydou Mamou Samb gis nga cinq ñooñu buñ ma waxoon tey tey rayal Gris dama koy rey buñ ma waxoon tey tey dugal kër dama fay dugg. wala hawla wala quwwata affaire rey sa ay rey ak yooyu. Reug Reug maa lay ñaan ngir yàlla ay waxu rey nga génne ko ci làmb ji nañu bëree tàkkusaan moo ñu boole te incha allahu rabbi moom xam na ne affaire bi dina dem ba nuroog rayante de mais du fa yegg ndax affaire bi moom ma wax leen tey dina metti ndax man ñaanuma yàlla daan Reug Reug sans blessure man ñaanuma ko. côté xeex bi waxoon nga ne booy ñëw bu jour ba booy ñëw jaag ngay andi yéen ñaar ku daan sa non dama ne bu dama ne jouru làmb ja nañ indi jaag tekkasi loolu laa wax te loolu dama si delluwaat te laa ko gën a mën a waxaat bu wóoru si man duma ma ko wax. waaw man bu ma taxawee ne musuma arrière benn pas nit ñëpp image yaa ngi fi mais moom bu weddee loolu te image mën koo génnee loolu wax lu dul dëgg la te loolu nit waru ko di def. lamb ji entre moom la ak man bu tëddee bu nelaw bu guddi dina xam ne ni am na combat bu sérieux li ma koy wax nag. dama bëgg mu dégg ko bu baax a baax. waxal ak moom kay mi ngi lay dégg. moom laay waxal. waxal kii di yow waxal. ni boo tëddee guddi li nga xam ne ni yow am nga combat dégg bu ma jaxase ak àdduna lii làmb rek day jeex bu jeexee rek jéem a. benn deux minutes moo ma booleeg yow la bu bëree bu bëree cinq minutes la ku ne dem xooli leneen mais kon bu ma jaxase ak àdduna dañuy waxee fii mu jël wax ji di di ko yóbbu feneen foo xam ne làmb jarul loolu làmb du foofu làmb du foofu làmb mbiru góor la. yaa may dégg làmb mburu góor la sama lu ma la expliqué bu jeexee rek jéena. man xam lu ma intéressé jéen kee na pire ma jàpp ko duma ko bu ñëpp xam ne duma naa ko jàpp ko daan la leen intéressé am te xee bi ñuy wax si moom laa bëgg mu indi ko te bu ko indee moo ñuus ko moo man nekk waxu mbër moo may yëngal noono te li ñuy àtte rek mooy amateurs yi nañ teg samay combat teg ay combat am dinañ xam ñaar ñi incha allah bu ñu dajee bu jour ba kam mooy jàngal sa morom bëri. ni ma la ko noonu lay amee dam bëgg moom mu ñëw indi xee bi mu yaakaar ma wan ne que mënoo xee mënoo bu indee bëree ma daan ka bu ma duma ka ñuus ko daan ka. Ah, waaw mooy mooy li ma lay wax rek ba tey loolu laa koy tontu gaa yi nañ teg ay combat am teg sama làmb daf bëri teg xel daf bëri ay naxante quoi xam nga léeg-léeg da ngay dañuy xàcc fii ay kii dama koy lii ñu ñëw làmb ja yooru mais ku xam na ne bu bëggee dina xeex bu bañee dina xeex loolu même bu fekkee day wax ne dina ma damay jàngal xeex pour ay teg xel. loolu bu bëggee dina xeex bu ko bañee dina xeex. loolu moom amul sax ay ma dem te ñëw. kenn du dem guerre di wax sa arme di wane sa arme quoi mais man li may wax xam naa fu ma nga teg bu baax a baax a baax. dafa dugg si écurie bu fa duggaat mais li ko fay xaar xamu ko li ko ko xaar instant amu ko. lu ko kongu moo ko fay xaar. nan moo koy xaar te lu sees lay comprendre si kattanu suñu borom. nan moo koy xaar instant yii nii ma daa am lu ko fay xaar suñu écurie sama wàllu côté daa am lu ko fay xaar sama wàllu côté sama dëkkuwaay man tànn ko parce que instant yi suñu waa dëkk dañoo décider suñu waa dëkk dañoo décider si ñun bu baax a baax a baax bàyyituñu benn côté lépp lu si mun lu ñu mun si combat bi ñu ko bàyyi si xatuma ak lu séeréer ñëpp képp kuy bëggee caat dañoo décider instant te man sama jëmu bopp tam man damaa décider. ne ko yow yow yaay lan booy xam nga moom mooy bëy. waaw bëy du sóoru booy. moom bëy de. ah en tout cas daal loolu laa ko wax bëy du sóoru booy moom day mbelelele di wax rek. yow nga. man booy laa. moom lan la moom bëy la. Eh, leer laa caat nag nee bu jour ba dina la wan ni moom mooy booy bi yaay paa bi. ah waaw nañu yónni yàgg yàgg bàyyiwul dara ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu dëggalee boppam combat bi du yàgg caat amul danger moom combat duel yi mu am yëpp da koo ñàkk. sama course yi teg comme ñetti course ba ñeent am ñetti course yoo xam ne saal saal bi lañ nekk ñoo may tas suba ngoon waxatuma ma dem suñu écrit fekk fa sama course fekk ak ñoom Pedda ñoom Grand Zil fekk leen foofu ñoom Maas ñoom Mor. sama gars yëpp ñooñu li may teg yëpp yëpp yëpp su ma jàkkaarloog armée yaakaar naa war naa mën a xalaat leneen lu am may ëpp doole. mais yaakaar nga ne armée li ngay daj daju ko instant bi. armée ah man de sama bopp laa xam parce que man yaakaar naa képp kuy mbër képp kuy mbër man lu may daj doo ko daj. ma xamal la ñaar pour te mu leer mën na maa ëpp de buñ sumeekoo dañu tolloo damay hmm. liggéey lu tol li muy liggéey lu ko gën a raw heure yi jóg bu ko jóg mafia baa ngi xam nañ te du combat bi mooy tax ñu ñuy liggéey loolu ñun dañoo opté nekk mbër noor ak nawet dégg bëccëg bu ngi ci waar bi combat boolewuñu ak entraîné moom xam na li ma koy wax combat bi lenn laay wax ku ci gën a sonn ku ci gën a entraîné yàlla na ko yàlla may na. waaw kon daal say fans bëgg nga leen a teel a libéré le 16 si kattan suñu borom. duma wala wala bëre. dóor mu daanu wala bëri lu mu laaj ma ko siy def. lan moo la ci gënal. si kattan suñu borom waxal lan moo la ci gënal ndam li lu ma ko am ma jël. su ma ko joxoñee mu daanu sax bëgg naa. mais dóoru daanu instant ndam ndam li moom ndam li moom moo ñor instant yi. ñu ngi waaj lépp. dana xanaa yaakaar naa kenn du dem guerre di wax ay armam waaw en tout cas daal missile a ngi fi raquette xaw ma balu raquette a ngi fi lépp a ngi fi daal. te moom dinañ yóbbaale lépp di di xaar rek. ban nga ko ciy dóor. waaw suñ demee buñ xoolee buñ liiree ci kanamam xool ni xaw naa yaru. ñu indil ko lu xaw a yaru bu xawee deko na tuuti ñu indil ko lu teng. arrosé ko ba mu tëdd. ñun fii lañ juddoo benn baraag yaroo fi màggee fi. ah armée tamit war naa mën a daane lu nekk de. non ar moom man lijjante woo ko moom man sama bopp laa lijjante quoi li ma xam man. borom méttee. sama diggante moom moom bu jour baa du méttee bu jour baa du méttee de dama koy désarmer si kattanu suñu borom. mën ngaa désarmer armée tamit. bu leer.